suñu mbokki jàkkaarloo ci duñu seetaan asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ñoo ngi ñaanal xalif général kulu murid Cheikh Mouhamadou Mountakha mu yàgg fi lool ci ànd ak wér ñaanal ko mboolem njaboot ak Cheikhul Khadim gépp waaye itam di ñaanal Serigne Ahmadul Moukhtar Mbacké xalifa Cheikh Mouhamadou Moustapha ak mboolem njaboot ak Cheikh Mouhamadou Moustapha gépp mbokk yi di ñaanal baax ki nga xamante ni moo di Serigne Abdoul Khadir Ndiaye di xalifa Serigne Darou Assane ak mboolem njaboot ak Serigne Darou Assane mbokk yi bàyyi Euh, ci biir réew mi ak bitim réew tey jii nag ñoo ci bis bu am solo bi nga xam ne moom la ñuy fàttaliku suñu jàmbaar ju tedd ja di Serigne Darou Assane ba mu tànnee dëkkaal yeeg borom ak léegi toll ci téeméeri at centenaire boobu nag moom la ñuy fàttaliku waale ci ndigal ak ci kilifteefu ki nga xamante ni mooy xalifa général kulu murid Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké yàlla fi yàgg lool ci ànd ak wér waaye itam mbooleem njaboot gi suñu jir ki nga xamante ni mooy Serigne Moustapha Fati mi nga xam ni moo tey nekk jëwriñu liggéey bi waaye itam ki yor kàddu kër gi di sëriñ Cheikh Ibra Jëmm Ndiaye waaye itam ànd ak mbooleem dawaayir yi nga xamante ni ñoo lëkkaloo ci fii ci kër sëñ Daaru Assane ñu man cee tudd daayira bi nga xamante ni moo di jamaatu Ahibaayi Cheikh Assane ak mboolem daayira yi ak mbooleem buntu kër yi nga xam ni ñooy buntu kër yi Cheikh euh, Daaru Assane yëpp ndax bés bi dafa am solo am solo goo xam tey jii dañ koy def at mu jot waaye itam mbooleem njaboot ak sëñ Daaru Asan gépp dañ leen ciy fàttalikuwaale ñu ko koo tàmbalee ci ab taawam ba tim caatam mbooleem sët yi nga xamante ni wàcc na liggéey ci diggante bi dañ leen dëxëñ ci ba sutay bii deen ko fàttaliku ndax xam na ni mbooloo mooy doole moo tax nag ni ngeen gisee ni mbooloo mi kër yëpp kër yu fasanti ko yëpp kenn ku ci nekk yaa ngi ñëw def ay bernde waaye nag li am solo mooy ni ñu ko tàmbalee muy tax si moo bi sunnati yaquluna lil janna noonee la ñu tàmbalee liggéey bi muy jàng alquran jàng xasaayit istighfar salaatu ala nabi basmala mbooleem xeeti jaam yàlla yi ak bernde bàyyiwuñ ci dara moo tax nag seen commission communication waaye itam commission culturelle commission sociale mboolem kër yi daañu fa dem dafa leen ay reportage dafa leen ay témoignage ci jëmm ji nga xamante ni mooy sëñ Daaru Assane moo tax na ngeen gis mbooloo mi fi mu toll nii bàyyi ko fenn ren jiitam innovation di yokkute am na ndax su xoolee suñu ginnaaw di ngeen gis euh, ñi nga xam ni ñooy waa polis waaye tam di ngeen gis ñi nga xam ne ñooy sapeur pompier di ngeen gis tam waa service hygiène waaye ñëpp nag ak consultation gratuite yi nga xamante ni ñu ngi koy amal tey kon nag màggal gi daal centenaire la boo xamante ni mooy centenaire Serigne Darou Assane moo tax ci kanam tuuti lépp li nga xamante ni bii lu fi ruusa ci kër yi di ngeen ko gis waaye tam ay témoignages ak bases yi ak ay reportages yi nga xamante ni day jëm ci dund ak jaar-jaari Serigne Darou Assane ngeen koy ànd ak commission communication bi nga xamante ni ñooy saytu lépp lu jëm ci wàllu liggéey bi rawatina xamante ni ñooy waa Daaru Ndiaye TV di eh, saytu liggéey bi ànd ko commission bi yëpp. tey di màggalu Serigne Darou Assane Ndiaye gi muy tombeeg le 20 janvier ñu koy def fii ci Daaru Ndiaye tey nag ñoo ngi dox ba si baax bi nga xam ne si ne moom la ñuy commencé liggéey ci wàllum jàng alxuraan ak xasida ak astaghfirullah ñu fas yéene si ànd ak ku mel ne njiital commission bi nga xam si mooy eh, commission culture di Serigne Siam Maraxib ñu fas yéene ànd ci ay kàddu yoo xam ne danañ ko indil pour leeral ko ci wàllum taxawaay bi nga xam ne si ne tey taxaw na ko ci wàllu culture bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñoo ngi leen baax mel na tey ñu ngi ñëw ci fàttaliku sëriñ Darou Hassane euh, ngir euh, fàttaliku boobu nag ñu jiital ci njàngum alquran ak njàngum xasida bi ñu xëyee suba ñu ci ndax xam ne loolu mooy ak bëgg bëggu Cheikh Ahmadul boo koy bayal tool bi nga xam ne moom nga moom nga koy bàyyal mu nekk mbégteem lool mooy alquranul karim waaye di xasaay di cheikh na ahmad al xadim moo tax bi nu xëyee ñu daal di euh, commencé njàng mi ci mboolem euh, kër yi kër yi si Darou Hassane yëpp waaye rawatina fii ci baas bi nga xam ne mooy euh, baas bu mag bi mu mel ne li mu xasida yi nekk commencé naa ñëw fii ñu toll rek di wax a yéen gën gaa néew ñaari junni ñaari junni kaamil yi Euh, li ko manqué lu néew la te jàpp nañ ne balaa ñoo ci euh, ñaanu sëñ bi euh, danañ egg ci ñaari junni kaamil wala dana tegal ci kàttan yàlla ak kon daal lii moo nekkoon ngir commencement liggéey bi ngir xasida ak alxuraan la xam nañ ne mooy toolu suñu Darou moo tax ñu fas yéene bi ñu xëyee ñu fas yéene ko cee bàyyal mbay moomu di mbooloo yëpp ak fu nit mën a nekk xam ne bi suñ bi suñ Darou Hassane mooy bisu alxuraan mooy bisu xasida kon yàlla nañ ci yàlla defal tawfiq te yàgg suñu Abdou Khadre barke Cheikh na Ahmad al Khadim jërë ngeen jëf. wasalaatu wasalaam ala asrafil mursalina saydina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi tahirina tayibin wa sahbihi al urrihi al mayalin rabbi sirli sadri wa yassir li amri wahlul xoqrata min lisaani yafqahu qawli asalaamualeykum wa rahmatullah jërëjëf ñu ngi leen di siyaare bu baax di siyaare mboolem ñoo xamante ñëw ngeen ci màggal gi rek di wax ne. lii mooy eh, exposé bi nga xamante ne bii ne moom lañ def ci Serigne Darou Assane ak dundam ak nekkam ci sëriñ Touba ak jaayanteem nga xam ne yàlla dimbale woon na ko bokk na ci juróom wala juróom-benn yi njëkk a ñëw ci eh, sëriñ Touba. Serigne Touba ba ka mbir ma dikkalee ñu ne ko fas jàng bi ma tuumaru moom dafa daldi bokk ci ñi nga xam ne njëkk na noo ñëw mu ñëw jaayante. xamal ko ne ko dey man damaa ñëw ci yow waaye nag ñëw gi ma ñëw ci yow soxlaw ma leen lu dul ngërëmal yàlla aataytukal yow ma dayfan atlubanna rida rabbil si lasi yolil maqamaati dikk naa ci yow di gan gan goo xam ne li ma soxla tey jii nga jox ma ko berneele ma ko mooy ngërëmal yàlla rek laa soxla moo tax sëriñ Tuubaa ne ko faalam bi annaka raadi anka mutalibun an jaayakal fawsu min mawlaaka wal mikan na nga xam ne day dikk yoon jox naa la nag na xam ne li ma la jox tey mooy lan mooy bul dence la ma la xamee woon mooy ngërëmal yàlla tey na nga xam ne gërëm naa la nag ba du daja yow ëllëg ay bon bon ak ay gàkk-gàkk ak ay musiba kon képp koo xamante yàlla dogal na nga ñëw ci màggal gi ñu koy defalal sëriñ Daaru Xasan wala nga déglu ko wala nga xool image bi yàlla na la suñu borom bi jéggal àdduna ak alaxira dafa la tawfiix ak taysiir ba tey si màggal gi ci wàllum base commission culture bi nga xam ne si mooy lañ def sponsor bi ñu tasee see ku mel ne Serigne mu bokk ci waa kër Serigne mën Mbadane di borom xam-xam bu ràññee ko lool ci wàllu yoon wi kon xam naa dana koy taalu micro bi rek mu indi ay leeral ak gis-gisam ci wàllum ci màggal gi bisimilah Serigne Fallou. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi nuyu ñëpp te di leen siyaare mu mel ni fii ñu teew tey di kër sëñ Daarul Xasan di genn kër ci yoonu murit wi. waye di genn kërit ci darul khudus tay ñuy fatali ku señ daru hasan li wara a bàyyi xel ñepp ci keuruk señ daru hasan gi moy and gi nga xamne mom lañu and ak benno gi nga xamne mom lañu benno ngir xam nañ ne yoonu murid keur go ci dem li ci ëpp magal ya bari na lool waaye ci biir kër sëñ Darou dañoo gis ne lépp ñoom benn rek lañ ko def képp ku daan jàpp ak màggalit bàyyi nga ko ngir muy genn di màggalu sëñ Darou waaye sëñ Darou nag moom day kenn koo xam ne la ci Serigne Touba waxaan rek dafa doy sëkk ci misaal kenn mënatut a wax lu kawe loola te mooy képp ku ñëw ci man ñi ci ëpp day seen ndab bañ ko andee dafa taq ma raxas ko ba mu set duweel leen waaye Darou Assane nag dama dolli ca ndabam kon loola day doy sëkk ci kàddu sëriñ tubaa googu ne kenn mënatut a wax lu kowe loolu ci sëñ Darou nag ab jullit la woon ab jaamub yàlla la woon ku bëggan Serigne Touba te déggal ko la te toppan ko bu baax a baax ba tax na bis bi nga xam ne moom lañ koy defal nii rek la war a mën a mel ndax. ab julit boo xam ne nungu na ak julitam taalibe boo xam ne nungu na ak taalibeem ci kanam Serigne Touba ku koy seet ak foo koy mën a seete mën nga koo seete ci kër ci sëñ Darou Assane mii ndax bëggutan lenn xoolutan lenn gisutan lenn loolu Serigne Touba rek kon yal nañu ko yàlla feel te taas nu ci barkeem wasalaamaaleykum wa rahmatullah